di fas yéene dugg ci biir waxtaan bi di leen jottali kàddu nuyoo ak kàddu cant ak kàddu ngërëm yu bàyyi ko ci ci su nekkee jëmmi Sëriñ Tuubaa di Cheikh Mouhamadou Mountakha di ko ñaanal mu yàgg ci lool ba mott bi mu waral ay yéene ak i naaram te dara génn ci liggéey moom kilifa bu ma sëkk kilifa kilifa boo xam ne li ñu doon kilifa foo ko gisee rek sax dem ci moom mooy delloo rek sa borom moom kilifa boo xam ne itam ku ko xam ci mën a mun mën a dékku ak fàtte boppam loolu néew néew la muy jëmbu joo xam ne la ko waajuróom Cheikh moom si seeraloo rek mais ki ma jaaxal de mooy Muntaxa ndax moom daa bëgg dara moom kaa bëgg naa dara de waaye dama bëgg moo jafe kon kilifa bu mel noonu bu ko am war ngay fàttali bu baax ci ginnaaw bi nga nekk ndax buñ ne sëtu seere mooy sëtu Serigne Touba bi njëkk a taxawu doomu Serigne Touba ci ndigalu Serigne Seere bi mu demee ba doomu Serigne Touba yi noppi jiite jur gi ànd ak itam Serigne Saliou moom la tànnal taw ñu ko wax ci wàllu kon le Serigne daa wax rek li yées ci àdduna mooy xam xam lu amut ak am lu amut kon yàlla nañu yàlla dimbali ba ñu ñu topp li gannaaw bi suñu kilifa ndax moom kat kenn mënu koo xeet ci dara du ci jikko du ci jëf du ci xalaat du ci doxalin te lii itam yëpp génnut. yërmaale ci nit ñi génn bëgg ñëpp am jàmm booloo jaam yàlla bu ma sëkk te bu fépp fu jëf mu génnee ñëpp xam ne jëf ci dara yàgg ci daal di nuyu suñu kilifa yu tedd yi nga xam ne moo leen jox ndigal yàgg na ba Cheikh Mamadou Lamine Bara jëlee liggéey bi teg ko ci sama loxo maa ngi koy fàttali suñu soxla yi suñu taxa moo woote woon ci kër Sëriñ Tuubaa toog booba Cheikh Sidi Mokhtar bi rek mooy ci at mu njëkk mu woote woo jëmale ko Serigne Touba yëpp nee naa boo ngeen ànd ba Sidi jàppale ko ci liggéey ndax mosoon bi la suñu saa yi yaa ma bëgg a seere léegi waxoon na ci dua wax ci dua ba dua jataay ba waxoon na fa bu bu tamal ko man ci du du du dina ci ba waxtu wala damay danaan ma li jiitu ci sama liggéey mooy sàmmal la liggéey bi ak loola ci noppal kon nag ñu koy suñu cat ci moom yàlla suñu tubaab seetal bu toon lépp itam xam gi ñu xam li muy def ci diggam ak boromam ngir bëgg ñëpp am jàmm fu ngeen yëkkate mu fu ngeen déggee mu santaare bés ku xamal lu ci dexañ ci biir ngir bëgg ñëpp am jàmm am xéwal nit ñi fu toll war nañ ko ñaaw yow ñu tànn kon ñu ngi nuyu suñu kilifa baax yi nga xam ne ak comité organisation bi nga xam ne ba liggéey bi tàmbalee ba léegi nii ci fukki at ak juróom-benn wala ba léegi nii kenn tayiwu ci xam nañ ne suñu tubaab yi liggéey kon ñu ngi leen di ci ànd ci liggéey bi ndax loolu itam. moom la Serigne Touba doxaloon ab bi ab liggéey ñoom ñëpp ci ne sama Serigne Touba lu mu si def ñoom la ko daal moo tax ñu itam ci yoon boobu la ñu mel te sant di sant bu baax di yëpp li kàddu yoo xam ne ñu ngi bi nga xam ne moo jiite liggéey bi. ak service yu ñu ko soxla te ka ñu jiitu du préfet bu Mbacké sa sous préfet bu Ndam nga xam ne ndaje yi ñu ko def ci commune Touba ca Serigne Ousmane teewe ko ak Serigne Mbacké ñoo ko àndoon ba liggéey ca lépp solo ci liggéey demaat ca euh, ndaje Mbacké waaye defar ko ci commune ndax mu bëri yaatu ba li cëpp lu waxtaanoon ak chef de service bi bu seetlu kon gouverneur ñu yëkkati ñu ñëw di ko sa loxo nga jot nañu ko ku jiite réew mi tey di président Diomaye Faye ñu yóbbanteel nuyu sëriñ bi ak wala ñu seq ak liggéey te bu ñu tuddee premier ministre Ousmane Sonko tudd ci ministre de l'intérieur mi nga xam ne mooy coordonné liggéeyu mag bi ak wàllu diine ji ci foofu la nekk di leen ñaanal suñu borom dimbali leen ba yaakaar ji réew mi am coono suñu borom koy ko tas ndax yaakaar rek nit ñi moo tax ñu fàtte suñu kilifa bu baax la si Abdoulaye Mbacke bi awoon yaa rek a fi am ci la xëyee ak ci la gontoo mu ne mu ne ki la xëyee daa tëdd ko guddi jaaxle ci biir xelam xalaat ba sonn xel rek moo ne rek waaye ni nga fexe ba yaakaar bi bu mu tasee ci yow nee na ki la gontoo itam daa xëy woon feneen yaakaar mu defar mu dem fa boo ko yaakaar mu tas fa mu gontoo la kon dikkee na nga fi am yaakaar bi dootul tas kon nag ñu ngi rafetlu liggéey bi nga xam ne moom lañ sóobu xam naa buñ demee ci biir Serigne Ousmane bi nga xam ne mooy saytu kuréel bi nga xam ne mooy saytu mag yi ak ñi mu ko àndal ak seen i xarka danañ leeral li jëm ci wàllu liggéey bi fi ñu ci toll ak li ñu ci war a jooyante ndax màggal gi moom bisu Sëriñ Tuubaa la suñu borom def def ci def la fi ñu ko wootee tey ci daj bii di gouvernance bu njëriñ Sëriñ Tuubaa fii la jëkk a wootee màggal gi 1921 wala 21 daa amul jiwoon ak waaye génn ñaari at yooyu ci la Sëriñ Tuubaa xëy bis ne natt yi ma sama borom ko te jeex na li li ci sama lépp ak koyta ak xéewal màggal gi saa su accepté ne xéewal bu ma suñ doon defal da koy fulaat ba toll noonu fii la bootoon ci njëriñ ci woote ko wax ko waaye dafa war taj njëkk a tàmbali moom ci moom ci biir këram mu mujj màggal gi dem ba génn pénc kon sëriñ bi lii mun woote waa ñi fi jaboot Sëriñ Tuubaa ñu fa wuti yëpp di ko woote ndigalul Sëriñ Tuubaa waxoon ci ay waxam ginnaaw bi tam ñu ko fuuti ñëpp wóyul ko tàmbalee mu fi nekkee ñu ko doon dundal ni ko sëriñ bi daa dundale te boo ko dana ko laaj bi sa kër ba Cheikh Mawlid Fall Mbacke ñëw woote ko ca Touba ne léegi sëriñ bi kat ko woote foofa ginnaaw bi tam Cheikh Abdoul Ahad Mbacke ñëw woote mu ko wootee itam ko daa waxoon waa fenk bi dañu am bis waa waa soow bi itam ma bëgg ñu am bis man yaakaar naa ñaanam boobu lañu adduna sépp tëg nañ ci Cheikh Abdoul Ahad Mbacké bi ñëwee dafa wax ne màggalu Tuubaa mooy suñu fête indépendance dafa wax ñëpp ñu dégg te loolu itam lu wér a wér la ndax fête indépendance bu agsee ci Sénégal bis bi Sénégal moo boppam ci saa yaakaar naa ñu ëpp xam nga tey kenn liggéeyu ci lañ ko yëngu wala ci télévision lañ ko yëngu waaye màggal Tuubaa képp mooy màggal koo xam ne boo demoon Dakar tey boo yeexee sax jafe-jafe oto bu nuyu bu la kon màggal Tuubaa la ndax bu Sëriñ Tuubaa demutoon ci géej gi kon tey lislaam dana xar ci lislaam dana saa xar ci lislaam kéefar dana fi lool ak tubaab bi dana fi lool Sëriñ Tuubaa doog ñu doogoon liggéeyee ni borom ci bis bi ba suñ ko fayoo ko mu ko fayal loolu waral jot suñ bopp kon màggalu Tuubaa mooy dëkki dëkki feetaan ba daal ginnaawam itam Cheikh Abdoul Khadim Mbacké da daa wax bu nit ñi moom loolu la àdduna baaxoo mu ne leen màggal gi ne jërutu xalaat ndax koo xam ne defar bis ñëpp sa bis mënta waxaale sëriñ Saliou nag doo ko tënkoon ci bu gàtt daa wax ne màggal Tuubaa de gan ñi bëriwut ndax mooy kilifa diine yi ak waa nguur gi ñu ci des ñëpp nag taalibe yu siyaare seen sëriñ daa ne moo tax màggal organise ba dafa nuur lu jafe waaye lu yomb la ndax li tax mooy taalibe bu nekk dana fexe ba këram jàpp loolu la ko jàpp naa ne koo xool gis ko bi ñu fi bàyyi ko itam association boobu dañu baax comité organisation bii ñuy wax tey ci nekk na tam Cheikh Sidi Moussa itam ñëw bokkaat ko dolli ci yu bëri bëri ba Cheikh Mamadou Mountakha yàlla fi yàgg te ak yow moom itam daaw boobu ñooñu joxaatam dafa gën a yëkkatiwaat ngir xam ne bis bi moo suñu defar benn suñu defar balaa ñàkk ñu mu watoon yow bokk na ci daal jox ko sax daal day mbirum lépp di su ko mën a leeral waaye ba la ci mujj mooy waajal ko kon xam na màggal Tuubaa fa day toll kon màggal gi rek du jar sori ci li tax ndax Sëriñ Tuubaa lu dox digg ma borom ka moo xëy bis wax ne loo ko ci ñëpp santal yàlla li tàmbalee ci gannaaw ba ci gileem am xaafet la ci ñu mooy am xaaf kon ak jaamu yàlla jaamu yàlla ci màggal Tuubaa gi la ci jiitu mooy ndigal li ci Sëriñ Tuubaa defam leneen lu ci dolli ko wax dañ ngi ci dolliwaat ngir xam ne lu baax la ak bañ nit ñi def lu xëy waaye lam ci digleel boppam nag te léeg-léeg ñenn ji mel ne kuy bëgg a jëli jeex di ko teg ci kaw waaye suñ moom lam ci santaane woon mooy gàddaay kon màggal bi suñu gàddaay la loolu itam du lu jaar la yàlla suñ tubaab deful nuñ koy laye bisu tabaski bii ñu nit defalu ci jaamu yàlla lu gën rek lu ñu def xaar kon bisu màgg ñu war a def lan yanaala llaaha luhuumuhaa wala dimaahuhaa walaakin yanaaluhu taqwa minkum ba ko sëriñ bi woote itam mag ñi daa ko tuddi ak tabaski wax sëriñ Saliou moo njëkk wax ne moo ne sëriñ Tuubaa moo njëkk wax ne bu leen koy tabaski wax ndax loolu day day day faat sunna Seydina Ibrahima kon dee nañ ko tuddi ak màgg baatu màgg ci sëriñ Tuubaa kon loolu mooy tax ba léegi màggal gi nag moom yaari fan la mooy fan gi nga xam ne nguur gi ñoo koy def te li ci ëpp mooy li jëm ci wàllu ndox kon loolu itam xam naa buñ ci liggéey daañu wax fi ñu ci toll ak jiw yi jëf kon ñu ngi leen ci ñaan baax ñu gën ci góorgóorlu la ci des mooy wàllu assainissement bi nga xam ne dëkk xam nañ liñ ci jànkuwanteel te màggat yooyu nekk ci digg nawet bi itam yéen da ngeen daal faram-citoo ba ca des it mooy wàllu courant courant bi itam xam ngeen ne Touba ni muy màgg di ko ndax ay 2003 2004 Touba mi ngi ci méga méga mètre weer méga la ca ca toll fii wax ak yéen dem na ba àgg ci 100 mégawatt kon dëkk bu ñu màggee noonu. bu ngeen gisee ci jamono yi Abdou Diouf ak président Abdoulaye Wade daa ngi def at mu jot mu maye courant bu bari ci dëkk bi mu jug Abdoulaye daana def at mu jot ñaari at yu mujj mu jumut at mu jot ma cinquante kilomètres lañ joxe mu mujj ma deux mille onze ñu joxe cent kilomètres cent kilomètres yooyu itam dañ ko daan tas ci quartier yi dëkk bi ndax xam ngeen Tuubaa li mu bindoo amul benn quartier booy dem ñoo fay dëkk benn kilifa bu sant sant ay teen jox ko ay teen wooy laa dëkk boo xam ne Sëriñ Tuubaa joxoo ndigal mu ne woon ci bitti Tuubaa Tuubaa dem ba mëdd ko la war a si ko ñaan ko noonu lañ ko daa séddale ci biir kër yàlla def nag 2012 bi président Macky Sall ñëwee ci nguur bi ministre ba yoroon énergie bi mu xoolee kayit yi xamul nu mu demee ndax nguur gu yees la tu toujours baaxoon na ci am bu ñu xoolee kër yi ñu tudd Daaru Xudoos tudd Daaru Lam tudd Daaru Muxti tudd Daaru Salaam tudd ko Mamour Diarra tudd ko Cheikh xaw ma dem mu ne man xaw ma courant buy jëm ci ay kër yi kii bi li ma xam mooy courant bu jëm ci population wax ko ci conseil du ministre yàlla def kumpa am ci nag loolaa waral excitation yi ñu ngi koy def sax waaye amul ci benn excitation bu jaarale ci ci kilifa dañuy def ko ci dëkk bi ñu ngi ci dëkk bi sax loolu sax damaa bëgg mu leeral ndax kilifa yëpp dañuy ñëw ci man di ko sàkk bu ma ko mos a sàkk fii dama ko waxaat bu ñu demee ci càll ko def fa duñ xam lu mu bi itam bu ngeen wax xawma ci lu defar nañ seen i ba noppi ne ma fii lañ ko xawma ci def ci lu weesu loolu man mii di wax ak sama kër gis ngeen daal assainissement fàccewu kon noonu la demee day mas ndax nit ñi xam ne demee du courant boo xam ne joxeetuñ ko woon sax ci mujj bi waaye bañ ko daa joxee nii la daal di ñëw ndax kilifa bu ne taalib bu ne taalib bi ci maa dem seen kilifa nga dem seen ki fi nekkal Sëriñ Tuubaa dañu war a kooku jox ma kàddu ma ko liggéey noonu waaye moom li ci am solo rek mooy. door am seen warteef boo xam ne euh, ñoo ko waxtaan mooy wàllu am loolu yëfi état bi yëfi Touba ndax Touba moom yaakaar naa la ñu war a def lépp ñu ngi koy def ndax ngay digg di dugg ci dëkk ba fekk ab hôpital ñun la day appel nga gis éclairage public ñun la day nga gis ay poste de santé ñun la day appel nga gis ay tëli ñun la ay ab daayira nga gis ay résidence ñun la ab daayira kon murid bi moom nangoo liggéey jàpp naa ci suñu la am kon nag màggal gi moom borom def na ko ñun nag li ngeen ci war a xam ni yéen a ngi ci kon ñu ngi dugg fi ñu ci toll si Ousmane ñu ko seen jànk ñu koy ko leeral ak service yi fi teew waaye xam ngeen ne loo xam ne Serigne Touba ba mu génnatoon biir këram waaye daale woon na it ne màggal gi dana dem ba àgg foo xam ne ku dul man mi ko woote ak yàlla suñu borom bi bind nit ñi doxam dafay teew ci mbooloo tool xayma bi xam ne nag waa université ba ndax mu waar loolu moo njëkk def xayma 2011 moo jur sax màggal gi tey ñu def ko fête indépendance ba ñu defee xayma ba la ko njëkk dañ daa wax naan màggal économie yooyu ndax nit ñi duñ bañ defee étude bi nag ci lañ xam ne naaj bi day yëkkati économie bi keroog rek wax président Abdoulaye Wade maanaam waraloo maître Madické Niang ñoo fekk jotaay bi ba mu waraloo waxee ne ko ko defee dara dara dara loolu mënta nekk ndax Sénégal conflits yi dafay bari mënoo defal Touba bàyyi fa des boo ko defee di indi coow mënoo ko bokkul man mii di wax yow bokkuma Touba kooku la dëkk. bu fekkoon damay défendre kooku laay laay défendre waaye Touba dafa tolluwut wax joojee rek moo ñu topp ba léegi mooy bëgg jàppe Touba dëkk boo xam ne dëkkub sëriñ la màggal Touba ñu xool lu tuuti ñu def ko fa bu jàllee ba déwénati Touba tollutu foofu ndax dëkk boo xam ne dem nañ ba da na ngeen ne bi ñu def étude yi dañoo wax ne Touba mooy ñaareel dëkk bi gën a Sénégal ba fa biñ mi def. recensement bi ñuy ànd ak waa bi ak waa Touba kanam ak mbooloo mu bari dikkee ma ko recensement bi ngeen di def dafa baaxul bu fekkee baaxul nag ñun danañ jël suñu responsabilité defal suñu bopp recensement ndax comme état buy natt day xool ñu dëkk ci dëkk ba gis nañ ne Touba wóor na ne li fi dëkk mën na ñaari million yàlla def ñoom ñu def recensement bi gën nañ caa yóbbu yitte ba wax ne Touba léegi tey mooy dëkk commune bi yëpp fa mu lépp ñu bari bindul waaye baax na ba tey ndax lu ci mën a xew étude bi nga xam ne université Bambey def na ko daaw muy étude bu wóor boo xam ne ko dem bëgg gis kay bi da nga ko gis fu wóor yi dépassé ci biir kër yi dem na 74 milliards dépassé yi jëm ci kër bu ñu xoolee xar yi ak nag yi. ganaar yi dem na 33 milliards bu néewee bu néew kon loolu bu ñu xoolee budget total bi yëpp yi defaa kër yëpp ñi xaalis bi jóge bitim réew am na ci génn kër bu yónnee xaalis bi wax rek wax na ci làmb ñoom ne wax ñetti fan màggal bi 3 milliards dugg na ci biir dëkk jaar ci moom benn kër banque xam ngeen ne ko fa dem day am jamono kon màggal Tuubaa li muy tuuti ci réew mi ñoom ci seen xel na ñu gën a weesu na deux cent quarante milliards kon deux cent quarante jàpp naa ne xanaa ñaari at wala ñetti at képp bu ñu ko defoon war naa mën a dëkk bi te dëkk bi ko xam ko ne xam ne Touba nag duñ jàmbat ndax hmm. loolu Serigne Touba dañu koo tere képp ku fi nekkee mi boo defee lu baax dañ koy sant bu fekkente ne lañ séntu mot tam du tax ñu xaram la loolu moom Serigne Touba tere نشطت بالشكر شكاية فلا أشكره دوري ودوري أبدا waaye bu ngeen di xool ci li weesu lépp ñoom ñëpp jàmbaar lañ leen sant nañ leen bu baax a baax ndax teraanga kenn du ko xeeb waaye bu ñu xoolee Tuubaa dayoo bi fi mu àgg xam ngeen dëkk bi kenn kaaru sax kaaru dëkk bi sax dañu koy tëri assainissement bi itam xam ngeen daanaka dëkk bi bariwul suñu tool waaye xaw naa yokk daanaka ndax boo demee ba kër yi wër fee ñu def na sermon observatoire fa ñu teg baax ba daanaka lu jege téeméer million ñoo ko ci bëgg a ñàkk ngir mën fàtte baax kon xam nga ni loolu bu mu ci jubul dëkk bi dañ yàq loolu nag responsabilité état bu loolu sëriñ bi wax rek loolu état ko kon loolu itam nañ ko gëstu te saytu ko te xam ne ndox mi li muy baax baax baax réussi bu baax moo ko gën ndax 38 forages wala 37 xam nga ne xëyut ci Tuuba ndax capital région yëpp boo xooloon ay fukki forage fukki forage yi ñaar wësu te seen ndox ma yor comme Touba réseau bi dafa yàqu am na ci foo ne ñu ko gas wax ne boo ko laalee moom moo wax boo demee tey Christine bi daal ndox maa nga ci biir nga dem Christine ndox maa nga ci biir armeel yu bari yàqu nañ ndax ndox mu bari boo demee Christine sari ndox maa nga ci biir suñu Cheikh daal tawam lu mu def lu leen lañ jël ngir mën ko faa taxaw boo demee. fépp ba ci péncum Darou Khoudoss kon ndox mi mi ngi bëgg yàq dëkk bi kon loolu mooy sax li gën a jàpp mooy assainissement bi ak réseau kon loolu ñu nekk fàtte ndax màggat yi day loo xam ne mooy Sénégal ndax ginnaaw jaamu yàlla gi ci Serigne Touba santaane wax la mu ci deere waxoon ko Cheikh Mouhamadou Moustapha lépp bu ñu demee ba ëllëg àjjana amatu bis waaye ci kàttanu yàlla yàlla mi nga xam ne bi moo bindoon adduna képp ku daa sonn ci sama bis bii gis teraanga yu dolli ko ci yow yoo xam da nga gis kon màggal gi jàmm bu amee ci Sénégal dëgg dëgg dëgg dëgg kenn tudd fi wàllu xel Sénégal gépp nekk benn màggal gi bokk na ci suyu ni ci loolu loolu ndax étude bi wane na ne six pour yi ci ñi màggal ay wolof la vingt deux pour cent yi ay séeréer lañ onze pour cent yi ay alpulaar cinq pour cent yi ay pël lañ trois pour cent yi ay joolaa lañ un pour cent bi jeex mooy yéngal xeet bi ñu xoolee màggal gi itam wax nañ ne quinze pour cent yi doonuñu ay bi suñu Tuubaa seen mbokk jullit dañ ñëw ànd ak ñu un pour cent yi nekkuñ sax ay jullit fa kon loolu lii gën a dëgëral lii gën gannaaw Sénégal màggal Tuubaa suñu li ci war a bëri kon nag ñaar ñu ngi ñaar ñu ànd ak ñoom ba yàlla dimbali ci ba ndam luñ ci daa am ñu am ci lu ko yéen ñi nga xam yéen a koy taxaw itam suñu borom bind leen kattan ak ba lu ngeen ci daal rek mu gën a yomb ci yéen ndax xam nañu tolluwaay yu bëri yu toll moo tax am na ci so yu am sax. bi jot àgg ci ndax seen daal bi laa wane ku ne la jàkk bu ko ne gëstu nit bu fekkente ne xam na jàngoro xam na ko ci wax foofu la lu jot ak si biiru sonn foofu lañ ci yore kàddu gi. asalaamaaleykum wa rahmatulah.